mbokk suñuy xarit suñuy am di jàmm rawatina suñuy dëkkandoo ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba pare ci turu volontaires yi yëpp maanaam ndawi croix rouge ci yi nekk fii ci senegaal ak ca bitim réew ñoo ngi leen di dalal ndax ku ne xam na ne jóge dëkk yombul waaye nag dafa am lu olof njaay di wax naan bés du tuut boroom lay tollool maa yaakaar ni kuy defal sa bës kuy defal bësu jàmbur doo yàq sa bës dafa am nag lu may dégg ba tey sama maam di ko wax naan yattu bati xëddeem dañuy yëgoo alhamdulilah ba fekk nañu ca ndax ku ne xam na ni euh, ndawu Croix-Rouge ndawu Croix-Rouge mooy mbokkam ci biir loolu suñu neexee neen li tax ñu ne dañoo lëm lëm ko ci mbas mii fi nekk ci ñun sànq bi ñuy dugg dégg nañ ko ci wax ci jàmbaar bu ñu ci am waaye dañ koy fàttali ne ñun ñooy ndaw yi taxawoo ne dañuy def te yàlla tax ci biir loolu ñu di leen xamal ne leen ci mbas mii fi jóge ñu nag waa kër docteur ca bërëbu fajukaay ya ñu nag waa kër docteur ci état d'urgence yi ñu nag waa kër docteur ci gox goxaat yi ñu ne waa kër docteur ñu nag waa kër docteur ah, bu ñu waxee loolu dañ ko bëgg a tënk di leen wax ne leen nit du taxaw di gërëm boppam waaye ku ne sañ na ne ca gox ba ma féetee waaye am naa yaakaar ne li am fii ci Mbàkke moo am fépp ak réseaux sociaux yi ñun gis nañ image yëpp ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp volontaires yi bu dul woon ñoom croix du am ndax ci àddina bi yépp volontaires yi ñooy def li ñuy gis ñun mën nañu xalaat de waaye eh, ay dara wax na ko léegi muy màggal muy Covid bi muy ñuy ñii ngeen gis ñii toog fii ngeen gis te ñi toog fii ñu tuuti la ci ñi nga xam ne ñi ngi woon ci senegal yépp wax na léegi ne juróom benn junni ak ñaar téeméer ak ñetti volontaire lañu mobilise mobiliser woon ci Covid bi waaye nag ah kilifa yi sanitaire comme kilifa état yi nee nañu mbas mi mi ngi ci ñun ba léegi génnul ci ñun te ñun ñoo koy joxe ñoo koy am ñoo koy wat bon nag nañu yemale suñuy daje yemale boobu moo waral ak ah, ñu tànn Mbàkke ci nag xarañam ak liggéey bu mu def ci Covid bi moo tax ñu tànn leen. waaye tim ñu jàppale préfet ndax ku lay jàppale danga koy jàppale ndax ndax xam nañ ne ah, rassemblement yu bari teewaay yu bari ah wax dëgg yàllaam soppuñu ko fi ñu toll moo tax ñu yamale ko nii waaye bu ñu sañoon volontaire yooyu yépp liggéey ci Sénégal dañu fiy teew tey waaye nag seeni président ñi ngi nii teew ma di leen gërëm di leen sant ndax mosuñu ma bàyyi ma wéet fu ma toog mu toog fa buñ ma bàyyi woon nag président Mbaye Sall ak sama président Cheikh Daouda Fall xam nga force bu ñëw ndax man département Linguère laa bokk comité local bu Sagata donc fu ma teew rek bëgg na fa teew ànd ak délégation ma di leen remercier département Linguère bi euh, département yépp nag waaye nag wax dëgg yàlla Linguère dama leen di beral loxo ndax fa laa jógee léegi ñépp moom waaye nag léeg-léeg dañ may jéggal ma cité Linguère bu baax a a baax. député monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Ndam monsieur le président du conseil départemental de Mbacké monsieur le maire de la commune de Mbacké madame la présidente de la Croix-Rouge sénégalaise monsieur le directeur général de la SOGIP Madame, Messieurs les chefs de services départementaux, Monsieur le Président du comité départemental de la Croix-Rouge de Mbacké, autorités coutumières et religieuses, Messieurs les Présidents des comités régionaux et départementaux de la Croix-Rouge, Monsieur le Vice-président de la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour l'Afrique, C'est le représentant de la de la délégation régionale du CICR. C'est le chef de délégation du Croissant-Rouge turc. Madame la représentante de Nestlé Sénégal. Mesdames, Messieurs les représentants des sociétés nationales participantes, Messieurs les coordonnateurs des services support et des opérations de la Croix-Rouge sénégalaise, Mesdames, Messieurs, chers volontaires, honorables invités, c'est avec un grand plaisir, vous le devinez, que je préside la cérémonie officielle de célébration de la Journée internationale du volontariat, édition 2020, embarquée sur le thème Ensemble, c'est possible grâce au volontariat. Cette cérémonie se déroule dans un contexte particulier, avec la pandémie de la COVID-19, qui nécessite pour nous tous aujourd'hui, et plus encore, le respect des mesures barrières. Nous ne devons pas baisser les bras pour faire face à une éventuelle seconde vague de contamination du coronavirus dans le pays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 Ah, ñi ma ñi ma woteel ñi ci ëpp ay góor lañu mën naa wax na ah, ñi doon wote eh, ñaf ñi ci bokkoon ci juróom-ñaar fukk yi 70 yi fukk yi sax duñu woon jigéen te pourtant genn wàll gi yëpp lu ëpp genn wàll gi bi woteel nan ma maanaam deux tiers yi woteel nan ma donc euh, góor ak jigéen ñoo nekk croix dafa fekk ne nag jigéen moom dafa bari yërmande waxuma góor amul yërmande de waaye jigéen Euh, dafay dafay dafay yar dafay toppatoo muy góor muy doomam bu góor di doomam bu jigéen donc euh, pour man góor ak jigéen yëpp baax na ndax man euh, duma rek di di farle jigéen ñi damay farle góor ak jigéen ndax damaa am góor am jigéen donc ñoom ñëpp laay yemale. liggéey boo gis day am ay jafe-jafe waaye tey bu ngeen seetee ndaje mi gis ngeen ci Croissant Rouge Turc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 ah Faly Sadio ma nga xam ne journaliste la waaye kenn rek la ndax kenn du mën a def lépp nan lañ ko mën a jàppale donc loolu aussi dafay am solo xam nga boo ko naroon a fay nit ñëw na la dama koy liggéey te doomu ma fay dara te loolu mooy volontariat damay liggéey te fayuma fayu yàlla nag am may leen ñu am contrat am na ñoo xam ne seen jàng dafa yàqu ñëw ñu am ay formation yoo xam ne danañ ko def ba am fa diplôme am métier am ñoo xam ne seen jàng dafa yàqu euh, cellule université bi nekk biir biir biir Dakar euh, ñoom dañuy dem sax ci école de formation yi ñu di leen may ay bourse yoo xam ne dinañ koy mën a may seen moroomi naataangoo yoo xam ne mënuñoo fay parce que seen i waajur mënuñoo fay ñu dugal leen ci école yooyu donc loolu lu am solo la yéen ñii tey bu ngeen euh, ne ñun kër ñi nekk ci école yi peut-être mën nañuy ñaan sunu chef de euh, sunu sunu sunu DG wala sunu entreprise de média boobu ñu jël benn benn nit mu def stage ci ci ci ci ci média sàngam wala sàngam euh, mënuma tudd ñëpp te bu ma tuddee kenn rek dañuy fiirante da ngeen di fiirante waaye kenn ci yenn ah tey di déglu naa présidente léegi dinaa dem seeti sama DG wax ko nekk ndax du mën a jël stage benn volontaire u bu rouge def communication xam nga loolu jàpp na ci ah yàlla mën na ko ubbil bunt foofu ci structure de communication boobu ba mu am fa liggéey donc loolu yëpp ci ci jàppalante la mooy mooy solidarité bi am solidarité bi nag wax dëgg xale yi Croix-Rouge yi ñi ngi koy suuxat bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koy suuxat bu baax a baax macha allah.